الحمد لله مبدأ كل أمر ومنتهى والسلامان على أفضل خلقه وباب حضرته مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي بك جلدي بك طالبي ديال سي وات ناني اندك يين تي سونو دارسو تي سونو دارسو بيغا خامن نين كو ديبي بيبليوتيك دو لا فيضه تي سين بيغا خامن مو ابراهيم تي في يان اندك سيك سين بوكو حسن صوفي mbokk mi gis nañu keroog fiñ mujje mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu indi na leen ci firnde yi commencé na wax naa la ko ne commencé na indi firnde ci alquran ak ci sunna yi tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ngeen ngi mbindeef ñu gis keroog ci darsu bi ñu weesu mu ne moom shafia la te aji la loolu firnde la moom rek la ko yàlla may moom mooy sangu doomu aadama moo ko wéral boppam moo ko yaxalal boppam ci ni may ko nettalee ci xissa ba gaa ñi doon tudd yonent yi mu ni leen ak lu mën a xew ma maa sangu doomu aadama wala fax bokk ca muy indi dalilam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ji القرآن كو يخلو من يبتغي غير إسلام الدين فلن يقبل منه mu delloo dox ne xeetam wi gën ci xeet loolu di firnde la wa kun dégg nga kuntum xayra ummatin uxrijat linaas mu waxaat ni ci firnde itam ne yonent bi salaa sallam rek la yàlla yónni mu nekk rahmatan lil alamin ma arsalnaak illa rahmatan lil alamin mu delloo waxati ne téeréem bi moo gën mboolem téere boo xam ne téereb asamaan law kitaabu afdalu kitaabin nazala nazala min assama bokk mi kon yo point boobu lañ tolloon téereem bi di alquran ma ne ndaw firnde yu wóor te leer lu ci nekk rekk mën nga indi cislaayam ci alquran wala nga indi cislaayam ci xadis annabawi bokk mi tey ñu continuer muy wax ne إنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وله الوسيلة وعظمه الله بما لم يعظم به غيره ورفع ذكره وفتح له وغفر له وأذهب الرجس عن أهل بيته وأسرى به وأقسم بحياته وعصره وبلده وأعطاه الكوثر وبقيت آياته مستمرة ونسخ دينه الأديان وبعث إلى كافة الخلق وإليك تفصيل بعد ما ذكرنا وأقول جرى في كلام المحققين ما يشير إلى الفرق بين مقام الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومقام غيره وإليك آيات توضح لك بعض ذلك wala baax bu baax lii mooy suñu texte tey bi nga xam ne moom la ñu war a. kon mbokk mi nga xam ne yaa ngi topp ci Ibrahima TV ci sa émission bi di bibliothèque de la fayda ñuy continuer ànd ak yow ci dalaay li nga xam ne sëriñ bi samp na ko radiyallahu anhu xam nga wax na ne. téereem bi mooy téere asamaan bi gën ci téere yi lum ci teg innahu awalu man tanshaqqu anhu l ard yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kii njëkk dekki ci suuf keroog boo xamee ne aji woote ji woote na ngir jaami ji jaami wuyu seen boroom mu atte yonent bi ne keroog day maay ki nga xam ne maa njëkk man la di njëkk yebal maanaam maa njëkk génn ci suuf wala faxar xaddis boobu imaam tirmidi solo na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man de maay sangu doomu aadama wala faxar man maay ki nga xam ne sama loxo ci liwal xam di nekk wala faxar man maay ki nga xam ne yonent yëpp keroog bis ba ci sama ron liwal xam di la ñuy nekk sama ron drapeau wala faxar waaye mu ne man de maay ki nga xam ne man la suuf si di njëkk xaral ma génn wala faxar kon li xaddis bu wér la. kon bu Mawlana Cheikh Ibrahim ne mooy ki nga xam ne moom lu moo njëkk a dekki keroog bis penc loolu xaddis bu xaddis bu wér la yonent bi saxalal ko boppam waaye wa awalu man yadxulul jannata beneen ngeneen ñëw am na ko ci kaw yonent yëpp mooy moom yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne mooy njëkk a dugg xal janna dégg nga ci wasila nag ci wasila bu leer ci wasila bu dëgër imaam muslim radiallahu anhu dafa solo jëlee ci saabit mu jëlee ci anas bnu malik radiallahu anhu ajmain yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne aati baabal jannati yowma alqiyaamati fa astaftixu fa yaqulu alxaazinu man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an laa aftaha li ahadin qablak yonent bi dafa nettali ci xaddis boobu mu ne man muhammad dinaa ñëw keroog bis penc ñëwal buntu xaljana mu ne ma sàkku ubbilu bëkk néegu aljanna walla kañ fa teg mu ne yow la kan ma ne ko man Muhammad la mu ne yow nag lañ ma digal ne bu ma ubbil kenn mu njëkk la yow daal yow lañ mu wax ne yow bu ubbi am naa la ubbil daal njëkk may ubbil kenn kon loolu it wane na ne صلى الله عليه وسلم يا يالله جنن لنكتكو الانبياء ومسلين يا يالله مقلين انتبي صلى الله عليه وسلم نينك انا لما مقلوك كن وعظمه الله بما لم يعظم به غيره ورفع ذكره يكتي الترم مالكي القرآن له ورفعنا لك ذكرك سلف الشرح نشر لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ko rafet na la kirikaan mayu foor yu yëpp yàlla may ko nekku ko maa la yëkkatil tur comme na mu ko yëkkati loon maanaam yonti yàlla ibrahim ne bàyyam yonti yàlla ibrahim bi nga xamee ne yàlla ne ko may ma ma am lisaanu sidqi fil axirin ñi mujj dikk na ci ñoom tur waaye rafet moom yonent bi yàlla ñëw nag ne ko xam nga ko def ko ñaanoon alayhi salaam yonent yàlla ibrahim dafa ñaanoon yàlla may ko siiwte ci ginnaawam ci ginnaaw bu mu fi jógee moom daf ko ñaan waaye moom kii moom ñaanu ko yàllaa ko ñëw rek nekk war a faana lakk dikk rek mu ne lii de ngëneel la boo xam ne am na ko ci kaw lam yaaw yi musal yi yemu ci woo fataxa lahu mu ubbil ko loolu alquran la inna fataxnaa laka fatxan mubiina li yaxfira laka allah ma taqaddama min danbika wa ma taaxar ci suratu fatax indiwaale naa la ca topp mooy wa xafara lahu mu kon rafaa wa rafaa yëkkati na dikrahu wa fataxa ubbi mbiram lahu ñeel ko wa xafara dégg nga mu jéggal lahu ñeel ko lii yëpp yàlla may ko ko te ñaanu ko sax fekk mu ko ñaan yàlla ne fa jëlal may naa innaa fatax na lak fataxan mu bi ne yàlla maa la hubbee mooy fatxu bi mu wax نقول يغفر لك الله يا الله جيك اللي ما تقدم من ذنبكم ما تأخر ولا تخون الجلد بأي تانك الدنيا لا يعيش النقاء يا رسول الله نجر لي يا الله جيك اللي ما تأخر بوم في تدرك وخولي لنجي كرت الدم ما تجاب وأذهب الرجس عن أهل بيته يا الله دمي لنخمه mooy lépp luy sobe lépp luy ayib yàlla dindi ko ci ñooña moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu bëgg mooy laabal leen ñu ahlul dindi mboolem luy li ñu tuddee sobeek li ñu tuddee tilim li ñu tuddee gàkk dégg moo tax day Aïcha dara bañ ko tuumaalee xadis xadis ifki ci xaswatu mustalaq Abdullah ibn Ubay kàccor baag mel ni moom siiwal ne dang mu daa day Aïcha tuumaal ko ne dafa njaala loolu ko Seydina Omar waxoon dégg nga ne ah, yow mi nga xam ne yàlla daf la laabal sellal la ba dara du la taq benn sobi du la taq laabal la ba benn ayib nekku ci yow du bàyyi ci kër mukk sobe yàlla du bàyyi ci kër mukk sobe di fa di fa nekk kon bu waxee ne ah yàlla yóbbee na ko di jébbee ñoo ñooñam lépp loo xam ne dindi na leen lépp loo xam ne sobe la loolu ngëneel la goo xam ne ci moom rek la ko yàlla wax comme ni ñu ko waxee sànq ci laay ja waaye yemut wa asra bihi mu rañaanee ko subhaanalladi bi abdihi laylan min masjidil xaraam yàlla moko yaxal ci alquran raña nee na jaamam jëlee ko ca masjid xaraam dem ci masjid aqsa aji xew-xew ci ngëneel gu for gogu lawali nag lakhirina nag la ko yàlla ngëneel la tingoog mooy rañaan bi nga xam mom moom ko yàlla rañane subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا لم لأخذنا للدلائل دينين كتك ذكر والآيات يب يانكو يجيس بوكمي بين بربين ويا من يمر فرد وأقسم بحياته يالا ليكو غنتي دوندم مومن النبي صلى الله عليه وسلم yàlla gën ci dundam lu foora ngoog xam nga yàlla wax ci alquran surtout dégg nga xijir ne la umruka innahum la fi sakratihim yamun ñoom daal maa ngi gën ci sa dund ne ñoom waa Quraysh ñu ngi seen ñu ngi seen mandite ga rek ak seen seen réer ga seen gëlëm ga rek voilà ba tax ñuy def ya ñuy def di sos ya ñuy sos di fexe ñuy fexe kon yàlla gëñ ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa loolu defalu ko keneen ku dul moom kon loolu beneen ngëneel la boo xam ne nit mën na koo teg ci ne moom rek moo ko am waaye mu ca de wa aqsama bi xayaatihi wa asrihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nim gëñe ci dundam non la gëñe ci jamono wal ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر يالا گن سي جامون يونس بي صلى الله عليه وسلم مبوك مي لا ني وخ اك حديثي نين ньо خول ريك گيس ني وخ جي مينغونا موم مي دم سيتي كو انديكو waaye moom indiwit ko moom dafay ñëw rek wax ko tudd ko wax na ñëw na ci alquran su ko defee yow mi am it yaay dem rek tool ci alquran gis ko te niñ ci indi yi mën nga caa indi yeneen yoo xam ne dafay gën a dëgëral wax ci waaw kon moom daf ne yàlla gëñ na ci dundam ni ma la ko indilee ci laaya ji gëñ na ci jamonoom gis nga comme ni ma la ko indilee ci laaya ji wa baladihi yàlla gëñ na ci dëkkam moom yonent bi sallallahu alayhi wa demal ci suratu tiin bismillahi arrahmani irrahim wa tiini wa zeytuun wa tuuri siniin mbokk yàlla dina gën ci barab fekk fooraayu barab ba moo tax yàlla dina gën ci barab fekk ka nekk ca barab ba moo tax yàlla dina gën ci mbir fekk yàlla daal lu mu ci tënk xamal ne mbootam moo nekk ci loola comme niñ ko gisee wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siniin wa haazal balad amin wa wa zaytuun mu ngay junj moo xam ne fa la yonent yàlla Isaa yaroo dégg nga wa tuuri siniin wa haazal balad wa tuuri siniin mu ngay mu ngay gëñ ca tuuru Sina yonent yàlla Muusaa ga waaye wa hazal baladil amin mu ngay gëñ ca Makkatal Mukarrama nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon kon moo tax Baay radiyallaahu anhu di ko wax feneen ne wax jii ja gëñ gi yàlla gën ci ñetti barab yi jaaxaloon na yahut ak nasaraan alquran ñëw na leeral leeral ko loolu nag li mooy màggal gi nga xam ne yàlla màggal na ko ngëñam ci mbir loolu rek lañ ci bëgg a wax yàlla ni muy màggalee la mbir ma muy gëñ kon su fekkee ne gëñ ne ci dund yonent bi gëñ ci jamonoom gëñ ci dëkkam waaye yamo ci wa aataaxul kawsar nga xam ne mayle goo xam ne yàlla may ab jaamam ay garanti ca yowmal qiyaamati ci aljanna fekk mu ngi dund mu koy bëggee moom ak ay àndandooram bay wax ne sama man ak samay soppe dinañ naa ni ci xawdu kawsar loolu ngëneel la gu xam ne yonent bi sallallahu alayhi defal na ko defalut ko beneen beneen nabi moom rek moo am kawsara yàlla wax ci alquran inna aataynaka alkawsar fa salli li rabbika wanxar inna shaaniaka wal abtar mbokk mi nga xam ne yaa ngi topp ci Ibrahima TV gis nañ firnde yëpp nga xam ne ñëw na ci téere bi di wane nga ne yonent bi sallallahu alayhi ci kaw kudul moom mu continué ne wa baqiyat ayatuhu mustamiratan bokk na ca nga ko yàlla defal mooy ay kawtéefam te kawtéefam kawtéefam yonent ko yàlla defal mooy alquran mu ñëw lottuloo mboolem ku yaaram laay yooyu nga xam ne yàlla jox na ko bokk na ci jagoo ga mooy mustamiratan ay baqeen mustamira ila yawmil qiyamati dafa des ba péncam yàlla yàlla déggal wax ji ci ñun yàlla ñoo wàcc alquran te ñoo koy wut xanaa lekk rek ne la téere bu dul alquran rek yokk nañ ci mbaa ñu wàññi ci wàll mbaa ñu modifié ci waaye mu mucc na ci loolu moom rek mooy téere boo xam ne ci kaw suuf buñ toogoon jël yëpp dajale ko dugal ko ci géej dégg nga am na ay jàmbaaram yoo xam ne lislaam am na ay doom yoo xam ne dinañ toogaat ci barab jël seen xalimba bindaat ko commencé ko ci fatiha ba ci minal jinnati wannaas lislaam am na ñoo xam ne tey buñ toogoon jël mbooleem luy mushaf luy kaamil boole ko dugal ko ci géej alquran tey am na ñu ko wëttu ci anam boo xam ne mën nañ ko bind ba mu jeex te duñ ca yàq dara waaye lay gën yéeme soo ci soppi woon benn xaraf wala nga si yokk ci benn xaraf balaa jën daay so rek gaa jël bi big ruus woore suluñu ko wan àdduna yëpp ne lii dañ ko ci yokk wala dañ ko ci wàññi demet ba mu jeex loolu moo dëggal inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu lahu la xaafidoon kon bu fekkee daf ne baqeet ayatuhu mustamiratan yonent bi ay kawtéefam tu mooy alquran yàlla ne ah bu man ngeen a indi lu mel ne alquran ñëw mu ne lu mel lu toll ni ñetti aaya sax lu toll ni ñetti lu toll ni aw saar munuñ ko saaru gën a gàtt ci alquran naa kaw sara mënuñoo indi sax lu toll noonu ku ñu wax jaaxees dafa ne ah ndaa ñi se alquran ji daal dégg arab la rek bu ngeen moom joxoon ay fooy doy ak biig tëj ma ci néeg ab diir ma bindal lindi de lu mel ni alquran ñu dugal ko ci néeg jox ko ay kayitam yu doy jox ko dundam bu doy naanam bu doy ba ko ci biir mu ngay bind di xotti rek bind ne bii baaxut xotti bañ toog ab diir ñu ne nañu bi xool waaye ñu ngi fekk mu ngi toog ngànk big bi foo yaa ngi ko wër ñu xamne rek ay la ween waa ji adab dégg na arab yamna la ko ara waaye alquran kenn du ko du ko toppandoo alquran kenn indi lu melni ni kon su fekkee ne yàlla ne bu fekkee yàlla ne na fay sax loolu kawtef la go xamne defal nako ko sallallahu alayhi wasallam salaam jagle la goo xam defal nako ko sallallahu alayhi wasallam defal ko kenen ko dul mom waya wa nasaxa diinihul adyaan diinaam ji sot folli na diina yi yàlla wax ci alquran ne képp ku jàppati beneen diina bu dul lislaam duma ko nangu tëj mën na laa jural keroog bis penc nga perte waaye mu ne yónni nañ ko mu dem ci mboolem bindeefi loolu beneen njëriñ bu yaa kàffatil xalqi loolu beneen njëriñ bokkut ak ne biñ gisoon bu mooy yàlla yónni na ko mu nekk yërmande ci mboolem bindeefi yàlla yónni ko mu nekk njërmaande ci mboole mbindee fi bokkut ak ba tey ah, dañ ko yónni wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin loolu rahma kunhu risaala gi la la risaala ga làmbool la waaye fii dafa wax rek ne risaala gi ci boppam mënoon nañ ko yemale ci benn xeet benn askan benn famille comme yi ñu defal yonent ci waaye déedéet moom yàlla daf ko yónni mu nekk yonent boo xam ne ilaa kàffatil yi dafa jëm ci mboolem ku yàlla bind te eh, nga war a jot eh, leetar bi wala nga war a jot message bi nga xam ne yàlla mu ngi ko jox ab yonentu léegi nag lii mu wax la na ne dina ñëw indil la tafasil yi dina ñëw indil la détails yi xam nga ne lii dara gënu ko wér ci xam-xam ay firnde yu wér la yoo xam ne bu ci nekk yonent bi ko yàlla jag jag jagleel te mënoo indil mënoo koo indil beneen yonent bu ko am ma ne xanaa lii rek doyoon na waaye yemu ca dafay ñëw ne indil la ko détail par détail naan la yonent yàlla Ibrahim moom day diggante moog yàlla nii la demee woon waaye yonent yàlla Muhammad nag moom bi mu ñëwee diggante moog yàlla nii la demee woon su ko defee nga comparer xam ne wax dëgg yàlla may gi fii la gën a lawee moo tax mu ne la wa ilayka tafsila ilayka tafsilu baadi ma dakarna da nga jot ci détail lenn liñ la tuddal فaqulu ma wax jara fi kalaamil muxaqiqiin jaar na ci waxiñu way dëggu ya maa yushiru ila farq ila alfarqi bayna maqaami alxabib sallallahu sayidina wa sallallahu sallam maqaamu xayri mu ne ballee na ci waxi ña nga xam ne duñ wax ci neen way dëggu ja ci yàlla borom maqaam yi koye mooy muxaqiqiini jóge na ci seeni wax loo xam ne dafay junj différence bi nek ci digënté yonent bi di señ soppe bi sallallahu alayhi wasallam ak keneen ku dut mom mu haqiqin yi wax nañ ko léral nañ ko yoy nak détail la lay ñëw nak di la ko indil tuddu yonent bi nek ki kat digënté mo yàlla ba fa li xewé ni ak ni la démé waye bu xewé ci digënté mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam muhammad ni ak ni la démé su ko défé yëfi dana gëna lér mbokk mi ci suñuy xel توضح wa ilayka ayatin mu ne dina jëmale ci ay aay yoo xam ne tuwaddihu laka ba'du zalika dina la leeral lenn ci yooyu dina dina leen la aay yoo xam ne itam dina la leeral yenn ci yooyu loolu nag incha allah bu ciy commencé dina ko njëkk a commencé ci yonent yàlla Ibrahim eh, alayhi salaam diggante moom yonent bi salaa salaam seen may moom la comparé ñu teg noonu la koy jëlee noonu la koy jëlee mbokk mi ba keroog rek ngay xam ne. الله ينتبي صلى الله عليه وسلم موي خير خلق الله لنا يخوانا موي شندر وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الله دربهم

اللهم صل على سيدنا محمد القاتل لما خلق والقاتل لما باعنا فراق الحق والعاقل الى صراط المستقيم